kalau ñoo nekk noonu ndeysaan Papa Ngana fii sa o jamol la a fii sa aboo nekk noonu moom si ka mbay bu mag ba ñu ngi noonu directeur technique ba ñu ngi jaxar ga ya lu ne la ñuy xolam di moom maama moom bi maama mu ngay jat rek di wër géew ba mon père ajuma na ko assez bu waar nga xam ne làmb butéel yi jóg nañ de moom mooy le seul lutteur bi nga xam ne ndeysaan moo am ñaari abu yi moom papa ngaan bi di séeréer bi di pël